من الشيطان الرجيم بسم mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ginnaaw ba ñu siyaaree Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér di nuyu mbooleem suñ kilifa yi nga xam ne si nii ñoo nekk ci yoonu murit ñëpp di yëkkati kàddu yoo xamante si nii ñu ngi ko yëkkati ci turu kuréelu matul xaddim gi nga xam ne moo lëkkale sëti suñ tubaay yi nekk ci eh, département de Rufisque muy njaboot gi nga xam ne dañoo nekk ci ay dëkk-dëkkaan yu wute yore fa daaray alxuraan di jàngale ak di yar ndaw ñi ak di jàngale xam-xam di wax ne dafa am bis boo xam ne dañ koo taxawaloon mu yaatu lool ci réew mi siiw lool ci réew mi muy surne xasida bi ni amal sak ñaari at yu ne ak alxuraan ñu waroon koo def le 12 avril yàlla dogal nag ku nekk xam na ne la xew ci réew mi ak bitim réew muy balaa bii nga xam ne suñ borom da ko fee wàcce ca it muy loo xamee ni si nii jaaxal na àdduna bépp bi loolu amee itam ñu xam ne dañoo am kilifa ca it suñ ndigali kilifa ci lañ sukkandiku ba yëkkati kàddu yi muy bis boobu nga xam ne dañ ko waroon a def le 12 avril dañoo wax ne dañ koy ajandi ba yeneen jëmmi jamono ndax fi jamono toll. loolu nag suñ ko defee dañ koo sukkandikoo ci kàddu suñu kilifa muy Cheikh Mamadou Mountakha ci kàddu yi mu yëkkati Cheikh Mamadou Basir jottali ko mu def jëf jëm jëf moom wàcc na. ci biir wax Cheikh Mamadou Basir dafa wax ne sëñ bi ne sëñ bi joxe na ay ñaan ñuy ñaan génne na xéewal dimbale ci état bi waaye leneen la ca des itam dafa waxoon ne nañ toog diglu ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ak ñi nga xam ne si ni ñoo yor santé réew mi fépp foo xam ne fa ñu jëmale ñu jëm fa. loola nag dogal bi dafa wàcc démb ci ki nga xam ne moo jiite réew mi muy président yàlla dafa dogal ñu bind benn arrêté boo xam ne dañoo wax ne fii ak un mois bépp manifestation dañ koy ajandi ba balaa bii nga xam ne wàcc na ci réew mi. suñ borom jëlee ko fi cay ñuy ñaan ak ñuy ñaan ci kàttanu suñ borom ci baaxuk Serigne Touba Xaadim Rasool balaa bi génn réew meek jàmm ba kenn ku ne mën a nekk delluwaat ci sa yitte di ko ñaanal njaboot gi nga xam ne ñi ngi ci bitim réew ak njaboot gi nga xam ne ñi ngi ci réew mi di ko ñaanal ñëpp. waaye nag ñi ngi joxe ndigal ci képp koo xam ne si ni yaa ngi yor daara ak foo ko mën di yor ngeen continuer njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi ak ñaan salaatu yi nga xam ne si nii ñu ngi koy joxe ñu ñaan ngir balaa bi génn réew mi. waaw loolu it ñu ngi ciy sant bu baax ñii fi toog kenn ku ci nekk daara nga yor ak mbooloo mu bari moo tax euh, nii ñu toogee ci kenn ku ci nekk yor nga yeneen daara yoo xam ne ñeneen a fa nekk moo tax ñoom liñ représenté yaatu na lool. loolu itam euh, boo gisee président ci boppam daa di wax ne tëjandi nañ école yi ba trois semaines kon liy jàng ci école yi rek moo nekk ci daara yi. ñun nag euh, wax dëgg yàlla euh, ni nga xamee si ni noonu lañ fas yéenee doxe mooy kenn ku nekk ci suñu daara danañ ko saytu danañ ca taxaw taxawaay boo xamante si nii ànd kook autorité yi nga xam ne si nii itam ñooy xeex jàngoro ji fépp foo xam ne bëgg nañ ñu doxee fa ak ñoom ñu ànd ci ak ñoom ñun daal pare nañ ci lépp loo xam ne si nii mooy xeex jàngoro ji tàllal nañ suñ loxo ñëpp ngir ànd ak ñoom ñu xeexu mu génn réew mi ndax mbir mi doonatut mbirum tarixa doonatut mbirum péete waaye mbir la moo xam ne mbirum réew mi la loolu nag moom xam naa ñëpp bàyyi nañ ci xel.